ñu ngi féliciter d'abord abord euh, benn bokk yaakaar ak tête de liste mi ngi turee ci victoire bi ñu bi ñu am euh, li tax nag euh, victoire bi mu nekk une victoire à l'arraché ci contexte boo xam ni dañoo jénn Covid bi ah waaye it mu am crise ak Ukraine ba prix yi yokk de façon boo xamante ne bi généralisée loolu boo ci toggee nga organiser ak élection ci ay nawet élection yi mën difficile loolu luñ comprendre la duñ ci attardé wu euh, li ëpp solo mooy ñu gunge président ci ay xalaat wax ko ni jot na nag ci résultat yi wane mooy mu renouveler son personnel politique loolu moom mootu la ñàkk mu rajeunir aussi son personnel politique mu redimensionner sa coalition ba mu ne une coalition boo dafay attrayante lu homme solo coalition bu efficace coalition bo xamante ne aussi dafay proactif madame du toog rek di xaar buñ ko dóoree mu fayu coalition bo xam ne day initiative ndax fi jëm di 2024 ah opposition bi buñ maye dara te xam nga opposition bi euh, tey génération 70 60 80 ñoo nek donc il faut que président Baye xel loolu ba jël euh, ci biir njabootam ni nga xamanteni bi lé euh nañu ak génération bobu mu jiital leen ci combat bi loolu pour mun jangat bu euh, am solo la waye nak li ëpp solo il faut ñu fexé li ñuy wax les centres urbains les grands centres urbains nga xam dañ ko perte Dakar muy euh, Thiès tey Saint-Louis ak ay Pikine yu demee noonu nga xam dañ ko perte yooyu il faut euh, ñu développer ay mécanismes ay stratégies yu ñu permettre ñu récupérer ko te nag loolu c'est à plusieurs niveaux bi ci njëkk pour man mooy fokk euh, xale yi nga xamante ne bile euh, jël nañ leen ci programme mu xëyu ndaw yi mi 65000 yi ñu yokk ko waaye xale yi nga xamante ne bii nag ah ala kulli alim xam nga du ñu mën a jël ñëpp waaye ñi nga xam ne jëluñu leen. ñu trouver ay mécanismes de bourse d'accompagnement parce que xale yi mootuñoo am vingt cinq ans génn am diplôme toog duñu yor dara ni mu def ci fur bourse familiale yi na ko def ci xale yi nga xam ni dañoo am ay diplôme toog di chômage loolu mesure pour man mesure bu am solo la 3FPT bourse yi nga xam ne daf koy maye dañu fexe bourse yooyu mu nekk ay bourse populaire askan bi di di ci jot mu bañ nek rek ay ay wax wala wala wala liñ ci maye day day nekk une goutte dans la mer xalé yi aussi bëgg nañu vraiment fofu président jàppale leen fa xalé yi fa am formation vraiment ñu financer formation euh, donc euh, ay formation 6 mois 3FPT def ko té mu gaaw té it mu accessible ñu bañ ko jafel foog noonu lool également lu am solo la li nga xamanteni mo moo ak ndaw yi programme bi nga xam ne président daf koy daje yi muy day ak ak xale yi di ko def palais pour man jot na mu def ko ci département yi le président dem dans chaque département mu dajale xale yi mu waxtaan ak ak ñoom je pense que loolu aussi dina dina ko permettre ñu récupérer jeunesse bi nga xam ni ñu ngi toppatoo euh, opposition bi wàllu logement comme affaire location bi moom di ko wàññi dina jafe ci ci nguur gi ndax contrôle bi nañu fexe programme yi nga xamante ni tëral na ko ay cent mille logements tout ce qui est logements sociaux nañ ci gaaw sénégalais yi mën a am kër euh, luyaas bu métti bi man leen a teggee ko parce que aussi loolu mesure bu bu am solo la jot na mu réguler les réseaux sociaux parce que sëriñ yu bëri mer nañu sénégalais yu bëri mer nañu parce que état bi wu leen ndax réseaux sociaux yi ñu ngi saaga nit ñi di xas nit ñi te ñu koy def dafa am ñu leen koy def loo te dara du leen ci fekk

lépp loo xamante ni bii euh, jegewul lu ñuy wax euh, gestion sobre gestion vertueuse ñu waxtaan ak ñi nga xamante ne bii président lay jël ay responsabilité ñu éviter di génne seen i njaboot euh, ñuy wane ay am-am ci ci ci réseaux sociaux yi ci télé yi wala ci ci ci rajo yi pour ñun loolu lu am solo parce que population yi dañ cee dañ dañ cee ber